salaamaaleykum mais nuyu naa la. nuyu naa la. yaa ngi ci jàmm. jàmm bu kay. Euh, tey ñu ñëw fii ci làmb ji làmb li fi faral di am bëri na. non bëriwul li may bëri wax dëgg yàlla. Ah. waaw mais tey dañoo gis ambiance bi nit ñi génn nañu est-ce que lii di ngeen koy faral di namm. waaw dañ koy faral di namm moom bu baax sax. waaw. boo gisee Pape Thialis Faye euh, mu ñëw defal leen fii fi nga xamante ni mooy mbapat bu neex bi suba mu war leen a andil ki nga xamante ni mooy booy ñaa ak Tapha Tine. waaw waaw ñooñu de bu ñu ñëwee ñoom soxla nañ ba moom soxla nañ leen lool parce que dañ leen di dañ leen namm moom. Hmm. wax dëgg yàlla soxla nañ fi mbapat bu neex tamit bu neex bu saf xorom xam nga Joal moom dafa nekk dëkk boo xamante ne dëkk mbapat la waaw loolu la. kontaan naa ci yow. waaw jërëjëf waaye man kontaan ma ñëw ci jaaykat bi looy déedéet wax ma looy jaay ba pare. Fataaya laay jaay ak 110. Fataaya ñaata. Fataaya juróomi dërëm dong. est-ce neex na. torop. mais noo gisee Pape Thialis Faye ñu def andil leen sub na leen andil suba Boy Niang ak Tapha Tine. kontaan rek xanaa di ko sant di ko ñaanal mu gudd fan. am na xale Joal yi. xale Joal am jom rek nangoo liggéey. mais nuyu naa la. fay naa la. Euh, nu ngeen gisee tey euh, mbapat bi fi am ngeen génn euh, njaay mi est-ce que bokk na ci lu doxal dëkk. bokk na ci lu doxal dëkk ba ndax dañoo gëj a gis ambiance bu demee nii làmb dafee gëj a am fu mu ne nii am nañ contentement ak fu mu nekk naa dañoo firi doom nañ kontaan nañ bu baax waaw. kon tey daal tey daal su ma déggee parce que affaire bi yemul tey rek tey la ak suba suba kii di Boy Niang ak Tapha Tine war nañ fay ñëw def signature noo gisee loolu Pape Thialis Faye andil leen loolu. ah loolu moom loolu moom jàmm rek laa ci gis jàmm rek laa ci gis ndax Joal fii suñu côté surtout suñu secteur bi dafa wéetoon torop yaa ma gën a xam fi mu nekk nii nag comme que commencé na ñun ñu ngi ñëpp ñu ngi génne suñu njaay mi di jaay mu ngi jar tabaar fakaala macha allah yal na leen yàlla yokk yal na leen bu ngeen ko defee ren yéen du dëwënee a ëpp nii ambiance ak xaalis waaw. kontaan naa ci kontaan nañ torop yow kontaan nañ ci yéen torop waaw. lan moo fi andi man seetaan combat rek combat yi moom waaw dañ koy seetaan rek. lu tax duggagoo. taxawal taxawal booy lu tax duggagoo. ah dëkk bee kaay rek. dëkk waaw. kon ñu maye port. waaw. waaw noonu la lu tax duggagu leen ba léegi ngeen taxaw ci porte bi nii. no dañuy xaar ba ci kanam quoi xam nga ci mooy gën a daax ko wax dañuy xool ambiance bi. ma yaakaar da ngeen war léegi nañu dugg léegi mais dafa am lu ñuy xaaragum quoi. Eh. waaw dina ñu ngeen gisee Pape Thialis andi leen fii Mbapat Mbapat gëj na fi am. booy gëj na fi am depuis corona bi mu dalee ba léegi moom Mbapat amu fi ko ok léegi bi ngeen xëyee euh, ñu ne làmb daf fi am bi ngeen ko yëgee nu leen def. no kontaan rek parce que lii dañuy yëngal quoi parce que lii la ñu xam Ah, lii mooy suñu cosaan ñun parce que ñun ay séeréer lañu lii lañu xam kon bu demee ba arrêté war a amaat dañ ciy kontaan quoi. oui. maa ngi a jaajëfal. ok merci. waaw fay nañ la. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm ji bi. lan moo waraloon seen teewaay tey ci làmb. xanaa ñëw seetaan si làmb ji xool suñu góor yi seen bëre waaw loolu woon. Euh, ambiance bu mel nii am fii tey ñoo andil leen ko. suba kii di Tapha Tine ak Boy Niang war a ñëw fii def signature naka ngeen gisee loolu. Ah, xanaa neex rek lay def moom ndax fii moom gëj naa am làmb moom lii day xumbal suñu koñ neexal fii rek loolu la xumbal Joal. mais la moo tax duggagu leen ñun ñooy ni dañuy dem jënd billet dugg si biir. Ah. waaw koñ fii laale sànneeku comme ñëpp. waaw waaw kon tey naa leen. nu ngeen def. waxal fii nuyu naa la. Diabo. Eh yaa ngi ci jàmm. sant yàlla. naka ngeen gisee làmb ji tey lii nga xamante ne da ngeen koo namoon gëjoon ngeen koo gis tey Pape Thialis Faye ñoo andi leen ko nu ngeen ko du gisee. waaw lamb ji moom neex na moom neex na torop moom neex na torop neex laa mënul mënuma wax. nee na neex na daal lépp jaam moom. Ah. suba kii di kii ak booy ñaa woo fee ñëw def signature ñooñu ngeen xamante ne ci télé ngeen gis bu leen ko andilee seen biir gox nu ngeen di def. contentement la ñuy am moom comme ni ñuy gisee yi que ne di kontaan rek la ñu gisee ñooñu di kontaan am contentement bu rëy moom bi laay. <laughs> léegi yow yow loo wax lan ngay jaay. beñe de laay jaay beñe. est na. neex na trop. benn ñaar. juróom. est-ce yaa ngi jën gaa ah ñoo ngi jënd tuuti tuuti moom. Euh, lii gëjoon na am am euh, fête am ngeen génn ñi sañse solu ñëw fa yéenee jaay euh, biñ ko arrêté ba dindiwaat ko nga dégg na làmb am na num leen def yéen waa gox. ah dañoo kontaan. kontaan nañ trop ndax instant bi dëkk bi daa kaaya moom ñoo ñëw rek jaay si pour am tuuti tuuti weccet rek waaw ah, naa ne kon dina neex ndax tey la ak suba. <laughs> incha allah neex moom bu soobee. li sañsee nii lii gëj naa. <laughs> kàggu pare gu ne maa ngi ci jaaykat yi xale jigéen sax dañoo dañoo jongo ma na ngeen def. ñu ngi fi. yéen ci jàmm. waaw ñu ci sañsee ñëw feesaan si lamb. de. naka njaay mi mbaa moo ngi dox. ah tuuti rek xanaa si kanam tuuti rek mu gën a ah. nu ngeen gisee làmb gëj fee am am fii euh, ñu tijji leen neex na trop ah. kontaan nañ affaire bi dañuy fàttali démb ak barki démb ndaxte xam nga lekk lii dafa dafa neex Macky Sall ñoo tëj ba sonn ñu dañoo bëgg a noo gisee suba ñu bëgg leen andil kii di Tapha Tine ak booy ñaa ñoo def scientifique fi noo gisee loolu. mais yow dinañu neex trop ndaxte loolu de andi fii foo xamante ne xam nga daal ñun ñoo dëkk ci koñ bi ñun fii lañ juddoo fii lañ yeroo xam nga rek suñu sag la loolu defal loolu garaan. ci kanam daal dina neex. yaa ngi ñaangale looy ñaangal. xanaa di leen xaar rek yaa xam te wax sama doléance. waxal sa doléance ba dégg la. <laughs> ah doléance moom simple na moom ndax dëgg fa neex yàlla et tey moom damaa kontaan ndax lii dama koo gëj a gis sama dëkk. waaw ndax la man moom làmb moom dafa may dundal moom man maa bëgg euh, affaire neex yii te làmb dafa neex ci dëkk te Joal Fadiouth moom mooy loolu dëkk cosaan la ko xam nga yii moom dafa baax pour ñun làmb rek lañ xam moo tax moom daf ñuy neex daal. kon tey ak suba daal euh, di ngeen doyal làmb moom. ah taxul sax ñu doyal xam nga lu doy lu neex du doy teeg suba sa taxul ñu doyal bu ñu sañoon mu doon semaine bi yëpp si la ñuy dàqal ñun. waaw ah, na ba ci kanam. waaw ok ah. ndax ñun jaaykat ñu mën cee gis suñu bopp. ah, ah waaw xam nga rek mooy loolu. kii day casse doléance am. noo gisee làmb bi tey. man làmb bi tey ah. ko amul doole kay. bul ñëw. Ah. waaw lu tax ne ko amul doole bu mu ñëw. lu tax ma wax loolu. moy a ah, parce que. gars yi foowuñu. mais dama la gis liggéey seetal lamb dama la gis sànq ba léegi ngay bàkku lan la. Ah. lamb moo ma neex. moo tax loolu. moo tax ma dugg si biir lamb bi léeg nga xam ne kooku moom macha allah. may ma may ma may ma njuug bi nga doon def fee sànq. may ma ko. waaw. <laughs>